dugg biir Sénégal wër Sénégal dafa nekk lu neex d'abord lu sedd xol parce que man dama bëgg jege nit ñi dem au contact donc loolu rek euh, moment de partage la yàlla def mu tombeek weeru koor bi ñu waxee dañuy campagne ci weeru koor gi man jaaxaloon na ma naka la ñuy def mais ak suñu capacité d'adaptation on a su trouver des moyens ba dugg ci këru nit ñi xam nga Sénégal bokk ak nit ndab ngeen toog dogandoo reerandoo dafa nekk lu fort donc campagne bi indi na loolu mais nag seulement campagne bi metti woon na tàng na journée bi euh, gars yi sonn nañu sécurité yi sonn nañu di daw ci ndox bi naaj bi tàng bi militant yi euh, mais di ko jar a ko jar Sénégal moo ñu ko jaral tey bu ñu ne woon une semaine sax dinañ ko ci def ba matal ko wante nag jàpp naa ne amel nañu une semaine de plus satisfaction am na ci donte frustration yi tamit bëri na ci satisfaction comme ni ma ko waxee parce que population yi wuyu nañu teew nañu et jot nañu def suñu liggéey mais frustration mooy campagne présidentielle kenn du ko parax paraxee donc euh, loolu muñ nañu mënoo dem Sénégal fépp en deux semaines def les quatorze régions on n'a pas pu le faire. donc loolu dafa causer ay frustration mais profiter ci opportunité bi di massawu suñu responsable politique yi nekk ci zone yi nga xamante ne jotuñu fa woon mën a yegg metti na loolu ci ñoom parce que yàkkamti woon nañu ñu ñëw fa ba ñu wan ñu seen doole war ñu lu ñu liggéey mais campagne bi mayewu ko donc du woon lu yomb tasante nañu nag ak ñëpp ci terrain bi ku nekk wane sa bopp def ni nga mën wóolu nañ ci suñu bopp en tout cas amul combat bu ñu daw d'abord c'est une décision qu'on accepte parce que je pense que leader politique yi demandé le support de euh, du PDS bëri nañu te ñun ñu bokk ci euh, sama kàddu démb changé wut tey support wu un président comme euh, le président Ablaye Wade am na solo wante vu que tànn nañu tamit supporter le PASTEF ñun dañ koo nangu gëm naa ne nag àndoon nag ARC moo doon le meilleur choix pour ñoom ndaxte dina renouveler le visage du parti démocratique sénégalais joxaat ko un nouveau souffle jox ko doole bu bees delloowaat leen ci soppi bi ñu doon wootee 2000 donc parce que ñun loolu la ñuy wax tey mais nag euh, ñoo ñoo yore seen parti def nañu seen choix mais les dés ne sont pas jetés rien n'est perdu au contraire. bëgg a xam lu tax ñu war a redouter. confrontation avec un parti politique jaaduwut parce que liñ doon xeex di ko xeex ci président Macky Sall mooy tiital gi ñu doon tiital sénégalais yi wala noot sénégalais yi et cetera il faut surtout pas que loolu xewaat man tant que maa ngi ci dëgg amul may tiit amul may ragal te duma tooñ wante boo ma tooñee nag ah dinaa la wuyu surtout dans une campagne présidentielle surtout candidat à l'élection présidentielle bu toogee jël wax walla safaan teg ko ci sa der da ngay seetal nga leeral sa der parce que nit surtout ku mel ni man amuñu lu dul loolu man sama loxo bu set bi mooy sama force du ma nangu kenn di ko gàkkal ak koo munti doon nañ teg lépp ci dëgg rekk très confiante très confiante parce que li ñu liggéey euh, ci huit mois ndaxte Salma ñun mayuñu ñu dara huit mois neuf mois en arrière amuñu woon parti mouvement euh, rien donc dañoo tabax de zéro te dara yomb ci woon au début ñenn ñi foog nañu lii ay caaxaan la tey yaakaar naa déggatoo kenn ku wax loolu parce que dama bëgg ñu wane ne liggéey rek. mooy am solo te liggéey jëriñu incha allah rafet naa njort ne Sénégal changement def fi am relève bi ñuy woote dina am à compter de dimanche parce que déglu naa nit ñi surtout di yaakaar bu baax ci le peuple conscient ñi nga xam ne rupture bi ñu ngi koy woote te mu dëggu ci ñoom parce que nag di nga am ñoo xam ne ñu ngi na laan dañu bëgg changement mais est-ce que bëgg nañ changement dëgg ndaxte ku bëgg changement dangay ngay voter Anta Babacar jigéen nekk président de la république jeune de mois de 40 ans nekk président de la république ku dul ku dul politicien nekk président de la république loolu mooy Sénégal bu bees bi ñu bëgg a tabax. voilà suñu suñu programme jagleel na poñ bu am solo jigéen ñi donte nag dafa laal lépp ci réew parce que ma nekk présidente de la république ku jigéen ñi président de la république du Sénégal. donte nag dama dama assumer sama position de candidatu jigéen ñi avocatu jigéen ñi parce que dañ ko soxla donc sama candidature bii rekk liggéeyal na jigéen ñi parce que wane na ne seen politique bi dañ ci am suñu place am ci suñu wàll tey jaaduwul ñuy laajte ba xam jigéen war na mën a jiite Sénégal question bi dafa est Sénégal est ce que Sénégal pas Non, je ne, reprenais pas votre question. Ah, je reprends une question générale. jaaduwul ñuy laajte ba xam Sénégal jigéen war na ko mën a jiite man j'aurais dit autre chose pourquoi pas pourquoi pas pourquoi jigéen du jiite Sénégal parce que mooy doon li gën fi ñu toll nii ci suñu programme bëri na ay mesures yoo xamante ne dina leen concerné euh, yu ci ëpp. c'est déjà renforcer l'observatoire national du droit des femmes des droits de la femme mooy bërëb bi caytu respect ak cër bi ñu war a jox des droits des femmes droits des enfants bu ñu wóor ne euh, kenn du ko gàkk-gàkkal li ci des l'agence nationale pour la promotion du leadership féminin dafa am solo jigéen jàmbaar ñu wan leen ne que ñun ay leader lañu dañ leen ci encadrer forme leen wan leen yoon parce tout est possible na ko bëgg nga gëm ko nga soobu ci bul tëdd di ko xaar amul góor la amul jigéen la góor baax na jigéen baax na je mettre en place teg en place la banque des femmes la banque de financement et d'investissement buy jagleel projet jigéen ñi man Salma nag waxuma ay micro projet parce que souvent boo déggee financement wu jigéen ñi dañ la naan micro financement micro projet noonu financement au projet à la hauteur de la dimension et de l'ambition des femmes sénégalaises banque boobu lañ koy jagleel mën nañ ci continuer ci formation bi nga xamante ne bëgg naa ko apporte surtout jigéen ñi nga xam ne ñi ngi ci village yi dans les zones rurales tàmbali nañ ko nag loolu moom continuité lay doon ci ñun gën leen a accompagner jàngal leen ci métier yi nga xam ne bëgg nañ ko ñu ngi nekk ci transformation fruits et légumes ñi nekk ci euh, saponification ñi nekk ci transformation céréalière et cetera donc yooyu dinañ ko gën a renforcer l'objectif yi mooy jox jigéen place bi mu am ci Sénégal ndaxte waxuñu ko assez mais économie réew bi lu ci bëri dafa tege ci loxo jigéen ñi. loolu peut-être li ma ci mën a yokk rek mooy ñaax jigéen ñi ak euh, góor ñi ñu gën a farluwaat. ci Sénégal bi ñu boole duñu fal président de la république ndax dañ koo joxoñ duñu fal président de la république ndax dafa rafet du duñu fal président parce que des questions yu ñuy xaar ñu am solo lool Anta Babacar c'est madame Diack du colonel Issa Diack euh, avec des enfants magnifiques une vie de famille et l'époux sera sans doute le premier homme Bah merci beaucoup merci Salma e merci au groupe Walfadjri ak téléspectateurs yi ñuy seetaan tey di leen wax ne rendez-vous dimanche bi dafa nekk rendez bu am solo mais woo surtout sénégalais yi nga xamante ne at yi ñu weesu demuñu woote ji ma leen di ñaax man Anta Babacar ne leen rendez-vous bii bu ñu ko raté nañu ànd dem voté ñu ànd voteel ma ngir ñu ànd liggéey suñu Sénégal ci Sénégal gi ñu bëgg. ci Sénégal bi woote la rupture bi woote la relève ndax ñu mën a indi xar kanam yu bees ak i doxalin yu bees donc di ci ñaax ñëpp benn musóor rekk la te maaka moom donc buñ ko jaawatle jërëjëf